Sénégal kuy xool mairie ville de de Thiès mairie bi la l'institution nga koy jox cent vingt parcelles. Mm-hmm. xam nga loolu yenduwul maanaam l'état état du dof état du nit day réfléchir joxuñu les Thiès waa dañoo jox le maire. c'est pas ce qu'ils disent ñoom. ah non attends. muy le maire de la. déjà déjà nee amul benn parcelle en déjà moom. voilà nanguwu ko Thiès Est aussi j'ai reçu le maire il y a pas très longtemps Ousmane Diagne ce qu'il a mooy on donné d'abord vingt cinq mu bañ ko. ñu yokk ko def ko cinquante amu ci benn boo xam ne c'est à son nom. xam nga cinquante parcelles pour une commune nga joxe ko déjà les conseils font plus de cinquante parcelles léegi yan population de la commune nga jox terrain cinquante parcelle déjà les les agents de la mairie sax. Mhm. mairie boo jël. ëpp nañu cinquante. cest il faut ñu wax ko te dee. et amul benn ci ñoom maire yi ku fi ñëw génne benn këyit. ne gouverneur wala préfet moo ma jox parce que l'administration elle est écrite quand on donne au maire on donne soit au maire avec une instruction mhm. joxal diw ak diw ak diw wala des demandeurs tel tel mais ñoom la ñu jox c'est la personne de Ousmane Diagne de Birame Souleye Diop de Babacar Diop la personne aussi de Mamadou Djité la ñu jox mhm. moo tax seen séddale laaju ñu ci kenn bala neexee def la leen neex man c'est Ousmane que j'ai reçu ce qu'il me mooy dañ ko proposé vingt il n'en a pas voulu du tout le préfet ñu waxtaan ñoom ñaar mu ne ko euh, après les cinquante ñëw mu ne ko da nga ci teg loxo d'abord pour après nga jéem a wut plus et les cinquante yooyu noonu joxe na ko équitablement non pas équitablement il, il pour pourquoi du génne liste normalement une une bonne gestion locale mhm. boo defee un délibéré wala maire un acte ci yoon buñ boo boo baaxee da ngay génne liste suñ la ko laajee nga génne ko nee na pourtant la liste elle est pour ku ko bëgg. c'est ce qu'il m'a dit mais mais publication c'est très simple xanaa ko dem bay publier euh, euh, euh, ne Massaly c'est un criminel lu grave nga publier ko sa page war nga mën a publier ñu lay laaj nag neel jox naa diw. jox naa maintenant nag ci publication bi on peut admettre que voilà kilifa diine bu la laajul. Mhm. comme comme xalif xalif yi fa nekk. ñooñu laajuñu la yaa leen jox. seen tur walu nekk ci loo xam ne laaj na la mën naa d'accord ku mel ne maire Babacar Diop ne man yenn kilifa ne man maa jógal sama bopp. Mhm. jox leen terrain du ma ma du ma mës a seen tur mais nag accusation bu taxawee nag ngay maire ñun la danga bàyyi Cees waay yi la ñu jox la cinquante terrain nga séddale ko nu mu la neexee loolu nag day toll. transparence ngeen ci bëgg. bien sûr.